ziar sëñ bi euh, ñu ngi lay ziar bu baax a baax a baax alors ñu gis ne ci centenaire bi dañu jël xale yi mettre leen au devant ñu def accueil bi rawatina tamit ci li nga xam ne moom mooy concours alquran bi nga xam ne dañ koy def ak ay bourses yi ñu war a maye loolu lu lu sabab loolu xale yi nga xam ni dangeen leen teg au devant. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. xam naa sunu nuyoo ñu ngi koy teg ci euh, nuyoo Pape Mamar bi nga xamante ni moo doon nuyoo sànq. ak li nga xam ne bis bi amoon na solo yëpp dafa mel ni tënk na ko waaye comme xale yi nga xamante ni dañ leen ci invité effectivement parce que dañu wax ne centenaire léegi nag xalifa bi ak njabootam yëpp ne euh, bëgguñu ñi def ko wàllu politique ñu ne nag Seydil Hadji bu buñ koy dégg daara moo tax te tamit Tivaouane nekk dëkk boo xamante ni ku ko dégg rek xam ne ne xam-xam mu ngi ci te tamit xale yi ñoom ñooy relève yi loolooy sababu nag ñi génne xale yi wax leen wax leen li nga xamante ni moom lañ leen di doyee mm. ay message yoo xamante ni dinañ leen jàllale mm. ba ci la ci la ci la ci lañ organiser woon ci ndigalu xalifa bi ci taxawaayu monsieur le maire Diop Sy mm. ñi def benn concours boo xamante ni musharakatul quraaniya la bu yàlla dogal am na xale yu jot a génn mais comme ni ko Pam Mamar waxee bu dimanche incha allah ci lañ leen di jox seeni neexal tamit am préparé ay bourse yooyu yëpp parce que si ku mel ni maam Seydil Hadji Malick Sy radiallahu taala anhu dafa waxoon ci benn xasidaam bu muy wax euh, ala ya rasulallahi kulli wa jumlati fa inni fi hada zamani garibun boo demee ci jeexatalu xasida ba dafa wax ne ala ya banni hada zamani daawtukum li ixyaai diini waaye nag bil ulumi mu teg mu mel ni ku taxaw fee ne ajibu wax ne nasaxtukum lillahi la gayru matlabi fa awnul la l alamina xasibu yéen ñi nga xamante ni doomi jamono bi maa ngi leen di woo ñi ñëw dundal diine waaye nag dañ ko dundalee ci xam-xam te xam-xam jàng moom xale moo koy def jàng xale moo koy def moo tax nag ñi ñi ñi ñi def istiqbaal bi wane ne nag euh, Seydi El Hadji ay njabootam bari nañu nañu nañu invité xale yi nga xamante ni ñoo nekk ci daare ji ci taxawaayu monsieur le maire ndax yàgg na koo def parce que bu nekk doon lii sax yàgg na rassembler daare yi solol leen bi leen di solol kilifa daara yi daf leen wax ne la xajaratun bi ba tey ni la benn xeer sànni jam ñaari picc parce que dañoo am ay gan yuy ñëw yoo xamante ni Maroc la ñu jógee ci ndigalu buur bi am na ci ñoo xamante ni yoroon nañ ñu ndax dajee nañoo ñoom sànq te président bi tamit war a ñëw te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ni man kaana yuminu billahi wal yawmil axiri fal yukrim day fawu képp ku gëm yàlla gëm ne taxawaayu penc am na na nga ko teralal na nga teral sa gan pré gan ñooñu ñëw nekk suñuy suñuy gan ñu war leen teral teertu leen ni ki tamit jaarale ko ci xale yi loolu mooy sababu ñu indi xale yi fii. dañu gis xale yi ne euh, ay ndongo daara lañ ci daara yi lañ nekk daara yi nekk biir Tiwaawoon yëpp wala dafa am yenn quelques daara yoo xam ñoom ngeen dajale ak bu ñuy xool lim bi ñaata la ñu mën a tool waaw daara yi nekk Tiwaawoon yëpp ragal naa ne bu ñu bu xajuñu ci xaa bi xajuñu fi waaye ci bañ bañ ñi jàpp ne lii politique la. moo tax ñi segg daara bu nekk nag am na ñu fa segg benn nombre bu ñu fa jël ne leen yéen boo leen ñëwee ngeen présenté wu. mais daara yi nekk Tivaouane bari neen bari goo xamante ni xajuñu fii loolu mooy sababu nag boo xoolee fii nii boo da xool ba fu sa bët yam ñëpp lu weex lañ sol di def istixbaal bi di jéem a teertu ki nga xam ne mooy euh, président de la république ak ak i ganam waaw incha allah.